comme mënta ñàkk dañoo jox ndigal ci ñu ñu son sa joxe ci kàddu rek moo tax ñuy wax waaye li mat a wax lépp waxees na ko ndax ñii ñooy mag ñi koo ci génnee ku ne daanaka juróom làq na juróom fukki at ak maa ci gën a néew at la te boo boo xoolee làq naa juróom fukki at ak lu topp kon ñun ñii ñooy mag yi daara ci kon li may soññi tout tànk yi mooy ah, sëriñ bi day ba muy wax dafa wax ni mag ñi saxaaba yi ñooy seen baay ci diine kon mag ña la waxal ña mu jamonoonteel ñuy roy saxaaba yi ñii nag moom xam nañu mag ñi jamonoonteeg Serigne Touba ca ñooñu lañ doon xool di roy ca ñooña kon ñii tuut tànk yi nga xamante ne ñoo tax jataay bii am ñii waruñoo nekk di gëstu saxaaba yi wala ñuy gëstu mag ña ñii ñooy seeni mag ñii ñooy seen baay ci diine ñooy seen baay ci liggéey bi ndax ku dégg sëñ Moustapha xam ni ba muy nekk ci liggéey bi boobu bari na ci ñoo xamante ni ganee guñu àdduna te ñun ñii ñoo ci gën a néew at te ba ñuy tàbb ci liggéey bi mën naa ne fukki at ak juróom-ñett am te ñoo ngi dugg ci suñu ñeen suñu juróom juróom fukki at ak benn wala ñaar kon dafa mel ni li ëpp ci suñu dund ci liggéey bi lañ ko def kon ñii fi wax ñii ñëpp ñu xam liggéey bi lañu te it ñu dund liggéey bi lañu kon liñ leen ciy wax ak laaye biire képp la doon wax dëgg yàlla sama xel dal na ndax li tax sama xel dal mooy jataay bi ku ko gis ku ne mën nga cee wàññi borom bopp yu weex yi mën nga leen a sepp ci mbooloo mi di leen waññi kon ñi fi ëpp ñëpp ay borom yi kawar yu yu yu ñuul lañu ay tuut tànk lañu kon lii yaakaaru na kon soññee gi daa mënta ñàkk kon ñu gën a góorgóorlu te xam ne liggéey bi ci seeni loxo lay mucc ñii nag fañ ci toll foofu lañ leen di wax ak fii ñi ci jaar ba agsi fii waaye firiwut ne dañ leen di wan seen bopp ñoom déedéet dañ leen di yombal liggéey bi ngeen xam ne ñii kat fii la ñu jaar ba egsi liggéey bi ñu egsi ko fii li Ablaye Mbuub di faral di wax liggéey liggéey ba mu toll sa óom di ñàkk fu la muy wadd kon dafa mel ni puso bi mu ngi seen loxo fexe leen ngal la rek ba bu mu réer ci seen loxo topp leen mag ñi di déglu ñoom li liñ leen di wax te xam ne duñ leen sànk mukk ndax ñoom ñu xam lii lañu ndax dañ koo dund ba àgg fii ndax ñett yi képp moo am ilmul aynul yaqin ak xaqul yaqin dafa am ci liggéey bi dafa am koo xamante ne dafa dégg rek ni géej bari na ndox da koo dégg waaye mës sa gis géej kooku moo toll ci ilmul yaqin moom bu dee waxtaan danaan dégg naa ni géej bari na ndox am fu am na fu mu tàmbal waaye kenn xamul fu mu yem aynul yaqin nag mooy ki nga xamante ni dafa dem ba ca géej ga taxaw ci tefes bi di xool gis ne ndox maa ngi nii waaye laalagul ndox mi kooku gis na ndox xam na ni ndox mi fii la tàmbalee waaye gisul fa mu yem waaye gis na ndox kee nag di koo dégg rek waaye gis gis ko kii nag gis na ko xaqul yaqin nag mooy ka nga xamante ni dañ koo yenu jaarale ko ci bato yóbbu ko ba ci biir géej ga sànni ko ci biir ndox mi nga xamante ne ndox da koo wër fépp ca kaw ci suuf penkook soowu lépp kooku boo ko génnee taxawal ko fee dana xam ne géej am na ndox ndox mi dafa saf xorom wala dafa sedd wala dafa sëcc kooku moo am xaqul yaqin ñii nag foofu la ñu toll ñii xaqul yaqin lañ ci liggéey bi luñ leen ci wax rek neen ko jàpp takku ko téere te xam ne ñun de ba bañ tàmbalee ba léegi ñoo ngi dox dafa fas ñoo wàcc ndax mag ñii ñuy roy ci xasida yi kenn ci ñun koo xamante ne ca mag ña bu ñu la waxee atam ba muy jàng kenn ci ñun ko ci am at yooyu amagul ndax gën a mag bu amee juróom benn fukki at ci lay yem te yaakaar naa amagu fi te mag ña weesu woon nañ juróom benn fukki at daan yëkkati xasida yi di dund li ñuy dund kon ñuy boobu ba léegi ñoo ngi ci nekk ci te fas wu ñoo wàcc lu dul le waxi sëñ Tuubaa ba mu waxoon ni axdimuhu ila duxulil janna daal di xaraalu mulaa min na liggéey bi ñoom foofu lañ ci taxaw ba àjjana rek te fas yéene nañ koo ànd ak yéen bëgg nañu nag saa bu fu liggéey bi toll fu ne yéen ngeen àggale ko bu raw fi mag ñi ndax kenn ku ci ne boo sañoon sa doom moo lay gën ndax kenn ku nekk ci ñun ci jataay bi sa baay sañ na laa présenté fu ne ne kii maa ko jur ku ne sañ na loo na juróo euh, ku ne fii kon ñun ñi suñuy ndamal baay lañu suñuy liggéeyu baay lañu ndax sëriñ bi moo waxoon ni mag mag ñi bu fekkente ni da ngaa da ngaa da ngaa li joxe sa ndaw jox ko yàlla suñu borom moo lay téye sag mag loolu bokk na ci dana la jox njaboot goo xamante ne ñoo lay taxawu kon ñun ñi suñuy liggéeyu bàyyi lañ suñuy résultat bàyyi lañ ñun ñii nag ana ñu ñun ñun ñoo liggéeyagul dara ndax kenn ci ñun ku mën a taxaw présenté sa njaboot ci ne kii mooy mooy ki may wuutu nangam am na ñoo xamante ne ñoo ngi ci tànk yi waaye ñun amaguñ ko kon liggéey bu baree bari bari des nañu kon liggéey bi wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar ci yéen kon nag góorgóorlu leen gën a jegewaat mag ñi te xam ne ñii làmbatuwuñu lii ñu leen di wax nii lu ñu xam la lu ñu dund la kon kàddu yi dañ doon jox ko nii rek comme jox nañ ñu digal ñu jox ci moo tax ñu joxe ci lii rek ñoo ngi tuub nag di jéggul bu baax baax bu ñu jullee ba noppi gaa yi mottali la ca des wasalaamaaleykum wa rahmatullah